لا إله إلا الله alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mu di nuyu mbooloo mi di tund yi di nuyu réew mi di nuyu kenn ku nekk si yéen turam ak santam ak jëmmam mooy nuyu jullitam waram tam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen wax ne sikar soos ngeen dégg sikaru jàmm la sikaru xewal la sikaru teraanga la sikaru yokku la lan la mooy waa kër Cheikh Babacar Thiam sa pas yi ak seen sëriñ seen wasila seen bunt seen lépp di Cheikh Mohamed Pape Diop nga xam ne moom moo leen xamal yàlla xamal la yenante bi xamal leen Cheikh Tidiane xamal leen Maolana Cheikh Ibrahim ñu xamee ci seen boppin nag gàmmum gu muy def at mu jot ren ji gàmmu goog moo dikkaat comme nu mu laan dikkaat ren ji dikkaat na yàlla ñu fekk ñëpp ci jàmm fekk ñu yokk ci saayir fekk ñu yokk ci baatin num dikkee wala kañ la ak fan la ak nan la mooy alxames bii da ñëw incha allah bu delsee nekk la 9 juin 2022 mooy bis bu njëkk ci programme boobu nga xam ne ziar lay do sa ngoon nga taalibe yëpp képp xaju ci Pape Diop moo xam nga bokk ci daayira ba bokkoo ci daayira ba nga nekk Sénégal nga nekk Gàmbi nga nekk si àdduna bi ak foo mëntu nekk rek bis boobu moom mooy bisab taalibe yëpp képp koo xam ne gëm nga sëriñ bi rek bis boobu moom yaaka moom mooy bis bi buñ xëyee nag ah, sa xalqa xëyee nag sa hajji ma ja mooy programme bi den xëy jàng kaamil incha allah den dalal gan ñi den def xewli yi benn waxtu si bëccëg ñi waaj ah, julli juma xewlu biñ defee loolu ba par na incha allah rabbi ñu dallu waaj xadra bu 18 jotee jàpp 19 heures 40 ñu def xadra bi ñëpp teewul si waa dund weeg waa réew meeg waa àdduna beeg ko safoo Baye Babacar Thiam wala képp ko safoo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu rek sa bokk loolu it ñu ngi sa incha allah rabbi ñu demee nag ba sa maa ngoon ak xaaji ma joñ ma wax la si la ñuy tertu ji sëriñ bi Cheikh Abdourahmane mu cheikh ibrahim ñu nga xam nga wara baye ko gambi ce bes bobu wara teew moom guddi gogu inshallah rabbi lool bokk na ci programme hajjama ji insha allah bu ba guddi gi 22 h japp 23 h den ma 20 20 h japp 21 h den andi cérémonie officielle nga xam ne nguur gi wala politiciens yi wala ñoo xam ne dañ leen jagle distance ba xam ñoom den si wax seen seen bëgg-bëgg ñi nit ñu wax ci seen seen seen bëgg-bëgg ci ñoom balaa déwén ñi def ko loolu la cérémonie da ma loolu lay jëriñ su ko defee loolu vingt heures laa da jàpp vingt et une heures vingt et une heures nag ñu xewlu vingt deux heures nag incha allah ñu dikkaat sa tànt ba ak Cheikh Ibrahim Bitey conférencier bu mag ñëpp xam si pays bi ak ko àdduna bi xam mii dem fépp moo war a taxawee conférence boobu war see waxtaanee lan Baye Niass lum daf si ndaw ñi kon gàmmug ren gàmmug ndaw ñi la tuddee yi sax dafa feeñ ci ndaw ñi nga xam ne daanaka bu jëlee mag rek jël neen ndaw kon bàyyi lu mu def si ndaw ñi loolu mooy waxtaan waxtaanu neex a waxtaan ndax xëy na jubal junjoon na ko kon loolu mooy thème buñ sa pare nag mu Cheikh Abdourahman mu Cheikh Ibrahima Niass ak Cheikh Mohamed Pape Diop nag ñooy jonjoo guddi ga ba fajar ñu julli fajar incha allahu rabbi ah gaa yi tudd yàlla tuddkat yàlla yoo war ñëw nag ñu fas yéene ànd ak fajar gi nag xar si nag ba. sept heures incha allah rabbi sëriñ bi ñaanal ñu yàlla ñee rendez-vous baa nga déwén sa kaarang poste sa jàmm ga yàlla nañu ko yàlla fekkeeloo loolu mooy jataay bi alhamdulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi nuyu mbokki Sénégal ak Gambie mbokki fu waay mën a ne góor a jigéen mag ndaw nuyoo bi nga xam ne ñetti maqaama rek la rek la saraamu salaamu ak rahmatu ak barakatu ñaan yàlla yàlla na ko wàcc ci mboolem jullit di leen wax ne comme ni ko aji waxkat ji waxee ci gannaaw loolu la ñi ngi nuyu waa Kaarang ñi nga xam ne ñoo jonjoo seen bi nga xam ne ñoom ñoo ci abonné di ko seetaan eh, ñu ngi leen nuyu di nuyu mbootu waa tund wi yëpp rawatina waa ñombaato gi nga xam ne fii la kaarang nga ne nga xam ne mooy capitalu ñombaato ñi ngi neyu ñëpp góor a jigéen mag ak ndaw waaye it di nuyu suñu sëriñ Cheikh Pape Diop mi nga xam ne ñun su fekkee ne mën nañoo toog tey téye micro di wax àdduna dañuy seetaan loolu yàlla ci loxoom la ko jaarale kon ñu ngi koy ziyaar da ko ñaanal jàmm tawféex ci barke Cheikh Ibrahima Niass ñu ngi nuyu waa Gambie ak waa Sénégal yëpp. ak waa diine ji TV ak mboolem réseaux sociaux yëpp nga xam ne incha allah war programme programme pare na pour jàll fa programme bi nag comme ni ko Serigne Pathé Dieng waxee rek noonu lay demee ñu ci woo ñëpp képp koo xam ne julli nga di wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah xoote booba ñuy xoote booba yow yaa ci biir ndax ka gàmm la boo xam ne comme ni ma ko doon waxee rek laa koy waxaat tey jii tey laa ko dàq wax. olof njaay dafay wax mu ne wax dafa jooy ñu nax ko nax ko nax ko mu të ñu ne ko looy jooy mu ne dañ maa wax te jotaguma kon nag saa bu jotee rek ñun danañ ko jéem a wax gàmm gi nag li ko tax a jóg du dara du wut gàmm koo xam ne ñi koy def dañoo fayoo ku weer kenn fayoo ku ci benn dërëm ñi toog ci studio bi ñii ñëpp ay élèves lañ xamuñ dara te kenn ku ci ne lañ la laaj joxe nga ko ba joxe lu ko raw kon loolu rek moo leen ko may yan yàlla dimbal leen ci li waral wax ji rek mooy gàmm gi ci ndigal lay dox doxut ci ne xam nañ xaalis nañ gàmm ñun gàmmoowuñ noonu gàmm gi seex Cheikh ci am radiyallahu anhu moo ko fi sampoon daan ñëw de indi xalalam da ci def ñëw ànd ak njabootam indi xalalam indi lépp def ko ba gàmm gi nga xam ne moom la mujj def fii nga xam ne mooy 2009 keroog moom mooy indi gàtt i yi caxaju yëpp gàmm gi nga fu njëkk ñëw man mooy 2007 maa fàttaliku bi nga moom bu ma set mu ne ko Pape Diop mu ne ko naam mu ne ko li dafa ceeb baa ngi ak diw gi kon nag kooku moom war a indi ay mbiram léegi loolu nag dem na ba tey ji tey ji nag yàlla fayee na ko loo xam ne bu fekkoon ne dafa nekkoon na fi tey ji ci saa dina xam ne mbir maa ngi dox konoon dafay ñëw ñi teral ko teraangal ko jox ko xalal mu ñibbi loolu moom konoon dana xam moom war a indi xalalam da ci def waaye bu bu fekkoon fekk na ko tey jii. dañ jëmee xalal ñun jox ko mu gàmmu ñu ba fa yar xartu boobu dafay gën a neex waaye nag olof mu ne dañ jël bànqaas ba delloo ko ca dàtt ba rek Cheikh Babacar Thiam dem na waaye demut kuutal la mu fi mooy Cheikh Pape Diop mii toog nga xam ne moom mooy njaag lu jim njaagatam moom mooy njaag ndakar waa ji waxoon na ko benn waaye ñu wax Salman Ndiaye dëkk kursu kër su lay Ndiaye ca ko sa dingaraay waxoon na ko mu ne jamono ji nga xamee ne Cheikh Pape Diop mu ngi dem foofu di wóoti foofu jamonoy ngóomeen mooy jamonoy dugub ji jamono asaka ji mu dem fa am fa dugub ji bëri ñii koy bëgg a bojji ba tey amul ñu ko bojji ji moom moo lijjanti machine bu ko bojji ba mu ko bojjee ba ne ko Salman mu ne ko naam mu ne ko yow nag saa boo ñëwaan ci kaw nga daan jaaree waaye tey moom ci buntu yi ngay jaar kon buntu mooy yoonoo de wa aatal buyuuta min abwaabihaa duggee leen néegi ci bunt ya mu ne ko yow nag saa boo ñëwaan ci kaw ngay jaar waaye tey nag moom ci bunt yi ngay jaar tey ci bunt yi ngay jaar de mu jaanda ko ci bunt yi mu dugg mu jokk ko ay ñu soow ak yeneen ci aju ba mu leeroo rek mu xam ne waaye jëm liggéeyaloon rek moo tax mu feeñu ko fayee ko loolu kon kooku ku ne xam na yàlla gërëm na ko sëriñam gërëm na ko ba Fatou Diallo ma laa wax ne Baakar gërëm naa la ba koo gërëm na ne ku ne xam na ku am ngërmande ne boo dee ci yàlla kon xooy di ga mën naa mën a yomb képp koo xam ne boo ñu xooyee ñëw tuddal yàlla xool la ci liñ moom ndax kat doomu aadama doomu aadama rek la mën a doon te ñun ñëpp nañ xam ne gëm ne ñun ñëpp benn lañ duñ wuutee duñ ñaar duñ ñett duñ ñeent xar ya ñoom xar lañ bëy ya ñoom bëy lañ nit ñi ñoom nit lañ comme nit nga may nit ngay nit rawatina ngay jullit rawatina ngay tijaan rawatina ngay taaliba bàyyi kon kay. la nga xam moom laa xam la nga gëm moom laa gëm kon nañ xam te bàyyi xeebante bi yàlla na yàlla dimbale ci loolu bañ man cee sax ndax waxoon naa ko léegi ca daara bañ doon def mais leen dafa moom benn ñaari wëlli yàlla yu doon xaccoo mel ni maqaama ñi xaccoo maqaama bi ñu ne leen léegi ku mën a dugg ci dëkk bi seet ki gën a suufe ci nit ñi nga mar tànkam yi su boobaa maqaama bi yaa koy donn benn waaye nag moom ku mel ni man ci yëg boppam rek moom dem dugg biir kaaram di wër ba gis benn dox bo xam mën mun ci ko sën da for da lek mu ne ah ki de mo gëna a ci nit ñi mu ko ko dal di mar tanki ba maré tanki yi ñëw toog ne mbir ma kar man na waaja tebe ne gam nelaw ba yeewu kay fuddu ben maxaaw ma mu ñëw ne ko ah sëñ bi man dal jaaxal nga ma yow man na dugg bir kaara wër mar ki gëna suuf ci nit ñi mar tankami yow nga tebe sa néeg bi benn maxaaw mu ne ko waaw man bama xeyé sama tanki la mar damaa jàpp ne maa gën a suufi ci nit ñi ma mar sama tànk yi kon loolu rek mooy mbir mi Cheikh Pape Diop a nag suufam googa ci saayal moom la nit ñi ne xam moom la nit ñi xool ba nga xam ne dañuy yaakaar ne ab silmaxa buy dox rek la te xam ne lu làmboo ci biir ndax kat fa innaha la taamal saaru walakin taamal xulub la ti fi su dóor bët bi nga xam ne mooy jënoog tabax yii ak ventilo bi ak yeneen ak yeneen bët ba mënta gis dara waaye bët bi nga xam ne dafay xool fi ba kaaraan baa bët ba ma nag moom la Seex Pape Diop xamee ba lépp lu mu la wax rek mu xam mu nañ ci dara lépp lu mu la wax mu xam ku bëgg sa xaaja faju le diis na nga te xam ne boo ñëwee sa xaaja dara faju loolu mu amul lenn lu ko mën a dindi képp ku ñëwee jàmm jàmm nga fekk ci gàmm gi ku ñëwee leneen nag boo ñëwee da nga xam ne da nga ñëwee yóbbu ko dañ ñun bañ yàqal dara kon yàlla na yàlla dimbale ñu ngi xool ñëpp góor a jigéen mag ak ndaw alhamdulillah assalamualaikum warahmatullah wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla jàmm te dugg sàkku ci yéen di rafetlu bu baax taxawaay bi nga xamante ne ni Cheikh Pathé def na ko ba jëmmal lu mel ni ñu jëm ci li nga xamante ne nii tey moom lañ doon fuglu ak yëpp muy gàmm gi ñuy amal fii ci kër gi waaw mu war a nekk le 10 soin bi nga xamante ne nii mu ngi ñëw war a nekk ajjuma bi ñëw nii bu delsi ah li wax na rek comme ni ko sama sëriñ si waxee rek ñoom mënuma wax loo xamante ne nii kowe na seeni wax ñoom xanaa jéem a jaaraat seeni tànk rek ndax tey lépp loo xamante ne nii amaana mu ngi si man rek ñoom ñoo ko def ci man kon ñooñu du ma jóg di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla jàmm te di ko sàkku ci ñoom tamit saa su ne li ñu wax rek gàmm gi mu ngi ñëw di woo suma bopp di si jiital sama bopp di ci woo sama mbokk yi nga xamante ni man ak ñoom ñooy ànd di rëtëjloo ci yàlla di ànd di rëtëjloo ci jamaa yi di ànd ci jataay yi toujours muy jeunesse bi nga xamante ne nii tey ñoo nekk kaaram dégg yàlla mooy ay ndaw yoo xamante ne nii ay ndaw dara ñorul leen lu dul yàlla ñu yar ñu ci loolu ñu nit ñu ànd ñoom kon ñooñu noonu bu ñu gisee lii bala ñu dégg ko rek dañu xam ne moo seen woote bis bi nag mu ngi suñu kanam foog lu rek lañ ci am mais ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn muy góor jigéen mag ndaw ñu ngi ci woo ñëpp di wax ne xéwal la goo xamante ne yàlla moo ñu ko jagleel li ñu war nag mooy ñu xam ne yàlla am na lu ñu jagleel ah, ñu safoo ko puukaree ko ko te ndamoo ko it ndax ñeneen ñi ci feneen lañ yor ñu ngi koy fuglu di ko puukaree woo te di ko ndamoo te àdduna rek la fii la yem ndeke nag ñun luñ yor ñun mun na doxal àdduna doxal àllaaxira ñun nañ fexe xam liñ yor mooy lan ba suñ sa yeggee buñ ko tuutal te buñ nangu tamit bu ñu ko tuutal ndax tuutiwut kon di wax ne rek bis boobu noonu bis la boo xamante ne nii wàllu yàlla moo ko fakkoon muy ku yàlla may ku yàlla it gërëm ku yàlla tàggatal boppam muy Cheikh Ababacar Thiam radiyallahu anhu kooku mooy fàkk bis bi kon ñun suñu toogee mbir mi roogaat ba wàcc si ñun ñun lu ñu war moo ñu sant yàlla sant yàlla moo ñu war ndax mënoon nañu mënoon na bañ a si ñun wala benn mu romb waaye loolu yëpp yàlla dimbale na ci ba loolu amul ñun suñ bokkal si ñu koy doxal tamit ñu ngi sa biir donte ñu la ndoor lañ ci sax ñu ngi sa biir ndax nit bu ñuy damay dégg ñuy wax ne nit soo ko rusul sax danga am koo ko rusal kon donte ñun buñ newee si jamaa bay Babacar caam kooku yàlla mën nañu yégal si yërmandeem ak ndimbalam ak leeram ba ñun suñ mbir du tag ci benn côté te yaqin boobu noonu ñu ngi ko ciy am ndax lim liggéey dafa weesu loo xamante ne nii ñun dañoo mën a toog di ko wax muy Cheikh Aboubacar am kon moom bu fàkkee bis mënoon koo samp Passy samp ko Sokone mu foofu ñëw ba Kaarang kon xellante waa Kaarang xamoon li ñu am mooy mooy lan ndax taalibe Baay yëpp lu ñuy fuglu mooy Medina Baay te xamoon nañ nam mel Medina Baay amoon fa cër lool daan toog ci ron Baay di siigar Baay di dégg Baay di nokk ci air muy nokk si air loolu rek ngëneel la goo xamante ne nii kenn mënu ko nattable kon kooku noonu bu jëlee bisam indil ñu ko ba fii biir Kaarang mais maa leen wax ne. yéen waa Kaaràn na ngeen wuy si boobu woote ne ñëpp ñëw góor jigéen mag ndaw may ñu kenn ngànt may ñu kenn ngànt ñu ngi woo ñëpp képp koo ko waxan képp koo xamante ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah rek ñu ngi laay woo ci booba bis ndax bis ba bisu diina la bis ba bisa tariixa la waaye bis ba it bi si faylu la te yooyu yépp dinaa leen tënk ba nga ne diina rek ci nga dugal yooyu yépp munoo mu yooyu munoo ci daq benn ci biir diina kon nag ndekam bis boobu noonu fii lañu ko Baye Babacar Thiam indil ñun waa Kaarang lañ leen góorgóorlu ci boobu bis ci suñu xalaat suñu doole suñu katan, naka lañ mëna def bis bobu réussir ak naka lañ mëna def bis bobu taru ak naka lañ mëna def bis bobu non nek bis bo xamantene ni at bu ñëw rek bis bobu non dañ koy yakamti ndax kenn moomu wax kaarang ak ñoko mom bimu rombe ay goxi gox ba samp karang rek ci lañ karang ci la karang am gëneel té lu bari ma ngi koy dégg ñukoy wax si koñ bi fi te ci barke bay Babacar Thiam boobu ci la roogaatee sikk newu ci tey bu ñuy xool fii ci Kaarang makkaan yi nga xamante ne nii yu maxtaar la ñuy tànn fii ci Kaarang mënuñ ci génnee koñ bi bu si jël premier du si jël ndaar ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi koy tëdd ci biir Kaarang fii mu nekk ay mbir yoo xamante ne nii ay mbiru tànneef la rajo bi ku ne xamantene ni buñ doon wax waxi estar waxi bi ci wax eh, rajo si estar la bok te mu ngi samp fi ci buntu kërëm kon ñu mëna a mbiri mbiru yalla la ku gor rek jot sa tef koku nak dafa liggéeyal yalla, liggéeyal liggéeyal yalla nak ba jot sa tef bobu buntu so fa saxé man nga liggéey tamit ba sa tef kon ñun ñu ngi sant yàlla ci bunt boobu noonu bi nga xamante ne ni ñun ci buntu boobu suñu yàlla tënk comme ni ko Chapaté waxee ñi nga xamante ne ni ñu ngi gis ci dëkk bi di rafetlu ñun suñu ànd ak ñoom ñun loolu ñu si am euh, cofeel boo xamante ne ni kenn mënu koo natable ñoom ñoo si am cofeel waaye man maa leen ci ëppale fuuf dama koy puukareewoo fu ma toll ci ànd gi may ànd ak yéen ci ci jamono bu ne fépp foo xam ne dem naa fa ànd fa suma bopp rek. man ma andaf ak ñom ci lay gëna am yëg-yëg ci ji ci ji ci ci lay gëna am tamit euh yegin bo xamanteni ni ci limay dox mu soti ci mo dox ko man kenn kon man xamna naa ñooñ ma fare man wu ma len sen ñoom ñoo am fuñ ma fare ndax ñoo ma defar mënoon na yàqu ne sagar nek ci leneen ñu jël ma teunk ma ci li nga xamanteni ni tay kuma ma gis ci limay doxé ak limay waxé nga sopp ma ci kon du ci man ci ñoom la kon ñooñu li may war toujours moo di leen jóg di leen delloo njukkal di leen ñaanal yàlla jàmm te di ko sàkku ci ñoom di wax ne daal waa Kaarang bis baa ngi nii bis bi suñu biir la ñun ñëpp rawatina ndaw ñi di rafetlu tamit initiative bi nga xamante ne ni ansaaru diin def nañ ko jamono bi nga xamante ni moo passé nii ci yàggul dara ci jéem a woo woote yeesalaat suñu ànd jéem a woote yeesalaat suñu rafetal ñu ne neen suñu biir loolu man maa ngi ci am kontaan bu baax di ñaanit yàlla boobu rënd renouveler ak boobu yeesal yàlla na nekk bépp jafe-jafe boo xamante ne mu ngi woon ci biir ànd bi rek bu ci newoon rek yàlla na yàlla yéegee jafe-jafe yooyu yëpp ba dootul amati ba lépp ànd tëdd kemtu lay nañ ko bëggee donte jafe na mais ñun jaam la te mais tawul yàlla donte ñun jaam la te te teewul yàlla te yàlla moo tënk si ñun kenn ku ne bu yàlla na nameloo si ñun rek loolu mën naa sotti yàlla na si yàlla dimbale asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbokk mbokk taalibe yi maa ngi di leen ziar di nuyu tamit sama mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo tey fii di jiital si nuyoo bi suñu sëriñ Cheikh Pape di leen fàttali rek suñu gàmmu bi nga xam ne le 10 juin lañ koy amal fii si Kaarang quartier Diamaguène face si station bi. ñu ngi leen siy woo yéen ñëpp ak jigéen surtout nag suñ mbokk